الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى مآفني الحمد لله الكريم سلمنا وللسلال خير ركنا ولتجعل الآساة للابتلاء نورا ورحمة بالامتهاء ورقاي ولا بلناني في اليسر واليسر على التوالي وليجثي بهم إن ينفهم ورمة سيدي بقلب يخصم وليافي دعاء اسمه مع القناعة بنفس كسبه وزوجة صالحة تعين هل تقاول بالريا معينه wa zawjatan salatan tu'inu fala tuxaawal birriya mu'inu wasbilan kalna fi dibrika abad هلا يا ما جملة علي يا جمد واضرب سرعة لخاتمتك على داري وما فيها جميعا مسجلا واضرب سرعة لخاتمتك على الدار وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكن خيبك واجمع عن الفتون ولتدخل الجميع في مكنون خيبك واجمع عن الفتون وعن سرار الخلق الجن والسيطان والبلايا وعن سرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبلايا وامرني بالتقى ونوري وسود والورى في دوري ومسكن المسكن الغفران ورد والإرفان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنج من بدار وأجل دابا مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاهم ومسكن الإنسان والتعليم ومسكن التدريب والتبعيم وجعل مسكن الخروج من سلام لنور وفضل كل من سلام وجل دابا مسكن اتباعي لسنة الله مسكن ابتدائي وجل يا ربي هاب مسكني في أرضنا لك وللمعيزين والتعم داري عن الفجور والفسق والقاتل في الدور وانفي الوباء والبلايا كلها عنا وطي صربها واكلا وجل ريمنا ريما امنا وكن بعصيك في لمدامنا واجلب لها الخير من الجهات أسد وفي أن العافات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا فيز يا سلام يا باي خلق الغمام بالخير يا الله يا غفيس يا سلام يا باي خلق الغمام بالخير نفسي وديني ثم البلاد ومسكني لك وديعة الأباد نفسي وديني سماني والواد ومسكني لك وديعة الأباد وكفى دنياي ما أخرايا ففيهما أن نذري في الرزايا واضرب سبع نهار عن جملة من بأتى لخو من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إلا الوضع بني آثم تولني ولا تكلني لعاد وارم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا وارم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا هلا محمد وسيلة لك هل يا موسى الختام لك هلا محمد وسيلة لك هل يا موسى الختام لك والتدري في الصلاة لسابة أنا لي وبالإجابة والتدري في الصلاة لسابة أناني وبي الإجابة والتثي في الصلاة لسابة أناني وبي الإجابة وليجد بكل ما طلبته بس القصيدة كما تمسوا وليجد بكل ما طلبته بس القصيدة كما تمسوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tawfeex juróom ji nga xam ne xaasal nga ko ko muy liggéey bii nga xam ne jotoon na ndigal bi ci sa mag bu baax ja di Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar ñaan yàlla yàlla yàlla loolu di gërëm xam ne liggéeykat rekk da ko sëñ Tuubaa jàppe woon ba tax na kër gi bu ñu toogee te jotuñu lenn ndigalul liggéey dañuy mel ne liir bu nàmput moo tax bi ndigal ñëwee ci ñoom seen xol sedd guyu bi mu ci jotee nag nee na fii la woote li lim daan dégg ci sëriñ bi dal ko ci mooy sëriñ bi bu lay liggéeyloo soo àndeek yéene ju sell ak pas-pas sëriñ bi ci boppam mooy toggoo coono ba ba noppi bàyyee la ndam la nee na mu lay seereel na lool dal na ko ci liggéey bii ndax génnut wuti fenn dara duggul oto duggul avion ba mu jotee ndigal li rek la wut si ci barab bii nga gàttandu ko fi ak sa taw feex nag mbooleem ku mu bokkal sëriñ Issa Diène muy rakk ñu topp ci moom nee na ak nu ñu bokke bàyyi fekk nga ci liggéey bi fase kàttan toll defe nga ko ci mbooleem taalibi yi nga xam ne kër gi lañ yaakaar kenn ku ci nekk fasa kàttan toll defe nga ko ci liggéey bi ba kera bi Cheikh Mahamadul Basir ñëwee ci moom jox ko plan bi architecte bi da ko waxoon ne ko liggéey bi délai juróom-benni at jàpp juróom-ñaar lañ ko war a liggéey waaye wóor ko ne moom xajut ci loolu mu liggéey ko ci ñaari at yu tegal ñaari fan te nee na dara sonalu ko ci lépp sëriñ bi jalal na ko ci kanamam ba nii mu mel ci kaw ni la mel ci suuf mu waajal ko ba lu mat junniy toogu ak ñaar téeméer nekk fi waajal na ca kaw barab boo xam ne jumtukaay yépp foofa lay féete di waxukaay yi mu teg ci ñetti néeg néeg yooyu ñiy traduire liñ fiy wax moo xam muy arabe wala français wala anglais ñoom lañ ko waajal yeneen ñaari néeg yi ca des ñi nga xam ne ñoo yor niitukaay yi lañuy bëgg bu nekkee di yéeg foofa di di yaatal barab bi waajal nañ ko ci suuf itam fii nga jàkkaarlool ci sa loxol càmmooñ barab boo xam ne sëriñ bi bu fi jiitoo waxtu wi dana fa mën a toog nekk ko fa lépp lu mu war a àndal ànd naag moom mu di la xamal nag ne ak cantam ci yow lay tàmbalee ci yow lay yem waaye mu ngi lay seereel ne sëriñ ba Basiiru yi wettili na ko ci liggéey bi jàppale na ko ci liggéey bi ay xalaatam ak ay taxawaayam dara mosu cee manqué waxtu wu ne mu ñëw na ko sëriñ bi nee na nangam sëriñ bee nee naa ñëw seetal si ko liggéey bi waaye noonu la cant gi di demee nag. ci sa doom ju baax jii di sa jëwriñ di sëriñ Moussa moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir yëkkati ne ay jéegoom ñëw ba ci liggéey bi ngir sa jëmmi bopp ñëw seetal la ko yëkkati ay kàddoom ak ay ñaanam jottali ko ci moom waaye noonu la ko sa rakk ju baax ji di sa jëwriñ di sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad defe noonu la ko mbooleem njabootuk sëriñ Touba yi sëti sëriñ tubaay yëpp ak sëti sëriñ bu soobe yi ak seexi yoon wi amu ci kenn ku waaxuwut ak tànkam fekk ko ci liggéey bi na ko damaa xam ne sëriñ Muntaxa am na yéene ñëw di ko seet si ma ñëwal ko fi kon nag nag mu ngi lay seereel ne bokk yépp nooñu lañ la taxawoo ci liggéey bi nee nag mi ngi boolewaat liggéey bi ak jëmmi boppam ak njabootu sëñ naar jenn gépp ak rakkam ju topp ci moom ni muy tege caabi ji sa loxo lay tegewaat seen jëmm yi sa loxo jébbal la ko ndax ñoom doonuñ ci seen bépp dara benn baat rek la ciy dolliku mooy taalibe dañ cee sonn coono boo xam ne bu sañoon soo leen xoolee bëtub yërmande rek wóor na ko ne seen aajo dana faju mu bëgg nag loolu sëriñ Touba waxoon sëñ Isaa na ko sa jëf moo la jiitu ci kër gi ba fu ma gestu sa jëf seere la fa nee na moom delluwaat ci kër ga ci bunt bi la taxaw di dégluwaat sa ndigal ndax daa bëggoon foo gestu ci say bët rek daje faag jëfam yoo xam ne ci kër sëñ Naar lay bàyyi koo jaar ci kër sëñ Baara dem ci kër sëñ Isaa nee na kon mu ngi toogaat di déglu ndigal di xam ne xolam sedd na xelam gën naa dal mi ngi gën a dëgëral yaakaaram tey ñaan yàlla nag lépp lu nar a jëlee ci tuyaaba ci liggéey bi yàlla na ko yàlla teg sa jëmm ji muy fanu gudd lool wa ànd ngërëmul Serigne Touba ak àggale sa liggéey fa nga ko bëgg a àggale ci barkeb Serigne Touba. Serigne Sidi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah akuk taalibeem ànd ko ak nag njabootuk sëriñ naar jenn gépp ak taalibe yépp nee na di sant dam na ci dikk gi nga xam ne dikk nga ko fi ngir nemmeeku liggéey bi nee na wóor na ko ne boo yabaloon donga ba gën a tuut mu dikk fii ne yaa ko yabal nee na doy na ko sëkk jógee sa jëmmi kon nag boo jógee sa jëmbi bopp. ànd ak sa njaboot. ngir yàlla jëmmi Serigne Touba ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba rek a tax. nee na kon xolam sedd na guy yu. xolub taalibe it sedd nañ guy yu. noo ngi ñaan yàlla mu yàggal la fi lool. te may la ak wér. ba mbooleem li nga yéene ci liggéeyu Serigne tubaab yi yéene ko ci njaboot gi ak taalibe yi. ak jullit yëpp yàlla defal la ko te nu ànd ko nag ak yow ndax yow kat ku la xam xam na ne sa bëgg-bëgg bépp sa yëngu ak sa dal mooy mooy ñëpp rek am am ju faju ñëpp am aajo ju faju jëlale nga nee na jëlale nga sax murid yi ku la xam rek ku la ci loolu rek la la xam kon nag ñoo ngi la koy ñaanal baax a baax a baax nee na xolam sedd na guyu nee na mi ngi feddlewaat ak njëbbalam akuk taalibeem ci yow fas yéene itam pasteef bii nga amee nekk ci sunu kanam di ko dox ñu fas la ci yéenee roy ndax roy la ci rek moo nu andi ci lii lépp kon noo ngi sant bu baax a baax di santitam sa jëwriñ jii nga àndal di cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mii ngir moo teg si woon xeer wi ba xeer wa jàlle it da koo ànd ak nun saa su ne muy ñëw di ñu seet si di ñu soññ di ñu ñaanal ba mu nu joxee eh, ndigal li itam yët ñu plan bi seex Sidi El Muxtaar jox na ko plan moom mii mu andi plan bi. lan ko waxee ne ko lan la waxoon lan ko waxoon na ko ñaanal na ko ci. ci darajee Serigne Touba. yàlla defal nañu ko ci. kon noo koy sant bu baax. Serigne Moussa sa jëwriñ jiitam. ñëw na fii. am na fi lu ëpp waxtu. sant bu baax. ñaanal nu noo koy sant bu baax. ñoo ngi gërëm ñëpp. liggéey bi nag mbàkke liñ ciy ñaan. liggéey bi nag mbàkke liñ ciy ñaan. la Serigne Touba waxoon Cheikh la Serigne Touba waxoon Cheikh Issa. ca jumaa yi njaareem ji. yi njaareem ba mu noppee. ba mu noppee. mu jébbal ko caabi yi. mu jébbal ko caabi yi. ànd ak mag ñi. ànd ak mag ñi. Serigne Touba da ko wax ne ko. Serigne sa tabax gii. sa tabax gii. misbaahu ahli sama yi. misbaahu ahli sama yi. wa najaatu ahli ardi. wa najaatu ahli ardi. mooy lampam ñi ci kaw. mooy lampam ñi ci kaw. mooy muccum ñi ci suuf. mooy muccum ñi ci suuf. ku ci teg sa bët. ku ci teg sa bët. ci gii ci tabax gii. mu neex ko ci xolam. mu neex ko ci xolam. mbiram dana ci yéwee ne àdduna ak alaaxira. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. bi mu liggéeyloo Serigne Bara armeel yu yees yii. muy bàqiya mu wàcc ab liggéey ci biir liggéey bi. Serigne Naar Jenn àggale ko. keroog bi mu joxee sëriñ Abdoulahat caabi yi. da koo wax ne ko. sëriñ naar waxuma la yéen waa njëriñ ñu ko doon liggéey. waxuma la yéen waa njëriñ ñi ko doon liggéey. waaye képp ku fa jaar. waaye képp ku fa jaar. def ca daraam rek. def ca daraam rek. mbiram dana ci yéwéne. ci yéwéne. adduna ak alaaxira. adduna ak alaaxira. waxuma la yéen ñi ko doon def. waxuma la nag yéen ñu ko doon def. loolee nag. loolee nag. yaa fi sëriñ Touba. yaa fi sëriñ Touba. te mbooleem ñi la fi jiitu woon. te mbooleem ñi la fi jiitu woon. seex Mouhamadou Moustapha sa mag ju baax ja seex Abdou Lahad seex Saalihu sa way juri ak sa mag yi fi jaar yëpp ñoom ñëpp làq nga seen ngërëm kon làq nga ngërëmul sëñ Tuubaa noo ngi ñaan kon loolu yi nga fasal nu ko ci suñ liggéey bii te boo ko ci fasee danañ ko am noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax liggéey bi nag ni ñu ko liggéeyee ñi ko liggéey ñëpp. ñi ko liggéey ñëpp. taalibay kër gi rek lañ. taalibay kër gi dara. ko liggéey itam nag liggéeyu murit it nag lañ ko liggéey aca murit rek maçon bi jiite woon liggéey maçon bi jiite woon liggéey bi taalibe kër gi yam ko àndal taalibe kër gi lañ conférence bi ki ko def taalibe kër gi ki ko peinture taalibe kër gi waaye architecte bi defar plan bi bi ñu noppee ba mu fi ñëwee dana li ma leen joxoon bàyyiwu leen ci dara kon sant nañ bu baax mbooloo mi fi teew méppit nuyoole ñëpp mu ne su doon nuyoole ñëpp ñu ngi ci biir ba ca xeer wa ca mujj ba ca xeer wa ca mujj bis bu ne bu ne si nañ xëy si nañ fi ñoom ñoom ñooy dalil ñooy dalil na ba donte xat na ba mu ne su ta nuyoole ñëpp it mu ne su ta wane ñëpp it kon daal ñoo ngi santaat bu baax rek di la gërëm di ñaan yàlla yàlla yàggal la fi noo ngi delloo di feddliwaat sunu taalibe bu baax. jërëjëf Mbacke li ci desit ah xëy na mën naa koo ñàkk a wax ci ci ci kaw sax. xëy na mën naa koo ñàkk wax kaw sax. bi ñu liggéeyee ba noppi. bi ñu liggéeyee ba noppi. bi ma seetee mu seetee xaalis bi ko doon liggéey li fi des. ñetti million la. ñetti million la. ak téeméeri junni. ak téeméeri junni. danañ la ko jox. danañ la ko jox. teg ko ci sa loxo. ko ci sa loxo. muy addiyee ji muy Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag bis bu Cheikh Bassirou Mbacké dikkee nag muy ubbitali nag muy ubbitali nag luñ ci soxlaa jëfandiku nag jëfandiku jëfandiku ci sëriñ Bassirou jox li ko jox sëriñ Bassirou it jox na ma ndigal li nga ko jox ngir koy saytu barab bi ngir koy saytu barab bi Ali Jenn mi fi nekk Ali Jenn mi fi nekk bañ tàmbalee ba nëgëni bañ tàmbalee ba nëgëni moo fi nekk yor ko yàlla dogal na yi fi nekk yëpp miin na ko miin na ko war a te lu ñu ci war a def itam. saa yu woo mbooloo mi. danañ dikk def ko kon Mbàkke jërëjëf kon Mbàkke jërëjëf. sant bu baax a baax. ak fay na bi. xam na ko xam na ko lu jiitu bi boobu Thank you. الحمد لله الكريم سلم على استغلال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما الحمد لله الكريم